ñetti yoon mel na ni ku xaj junni yoon umra junni yoon te dees na ko musal ci ak ñàkk te dees na dolli wërsëgam te xaraf wu ci nekk dees na ko ci bindal ñaari malaayika ñuy fay ay ñaawteefam di ko bindal ay yiw ba bis ba di dellu ci déwén te dees na ko yëkkatil ay darajaam te fu mu jaar dina am ngërëmul borom bi subhaanahu wa taala ku ne xam na ne nag dugg aljana moo jafe moo yomb mais ngërëm dafa jafe ridallahi ku nekk bëgg na ko te yàlla na borom bi subhanahu wa taala defal ñu ko mbokk yi ku ci bëgg yeneen ni leeral dangay dellu ci xurratu ayni bu Serigne Souhaïbou Mbacké page 142 yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi